laa lii moo di buntu laa lati bi nga xam ne dafa dikk li na fi jin si pour dàq xeet laa am na boo xam ni kat amul fu mu lexte saas xarfu naf yu la amul feel ak lisim la yemale amul xarfu naf yu rekk la amul jëf amul place amul jëf mooy du ñu la ne nafiya la rekk la du rafaat du du nasab du jasam soo ne zeydun laa yaquumu laa jooju lu mu def ci yaquumu gis nga mu nasab ko wala mu jasam laay naafiya dong la du def dara kooku benn la ci laa naafiya yul mutlaq lay dàkk kooku dana dugg ci lisim zeydun laa yaquumu dégg nga dégg ngeen dana dugg itam ci feel dégg nga de zeydun lam yaqum walam yaqud laa yaquumu walaa yaqudu jëfu fa dara am na laa ji nga xam ne nag moom ci lisim dong lay dugg du dëgg mën na dugg ci lisim daal itam du dëgg ni ki laa zeydun wala amrun noonu misaanan ko aywa am na laa joo xam ne day dàq waaye ci nakira dong la la la jagoo booba nag jooja laa su fekkee dafa di dàq xeet wa lépp dàq gu fomal gu nas kooka moom ci mbokki inna la bokk nag du dëgg maanaam laajoo ju nga xam ci nakira lay dem mbokku inna la su dàq ga dee nas mu jëf ca jëfi xaas ci sart yi nga xam ne buntu laa ci lax ajaroo maag yëpp dañu koy jàngale sart ya moom détaillement ba mu ngi ci biir bunt bi dégg nga su sart ya sarti jëf inna ya matee mu mën a jëf-jëfu inna waaw loolu nag lay jàngale amala in najal lilaa fi nakira mufradatan jaat ka aw mukarrara ijal defal li inna ñeel inna li laa ñeel la amala inna jëf ju mel na jëfi inna jëng ko daan def loo nasab li sim rafa xabar ci fan nag fi nakiratin laa fil maarifa du du du jëf-jëfi inna ci maarifa de su duggee ci maarifa da koy day du tee day yor rafaawu mubtadaam ga rek dëgg moo xam nag ba nga ko jëfloo ci nakira te di ko ci jëfloo jëfi inna suye boo jaat ka dafa la dikkal mufradatan di lu ñu beru benn dong la ni ki laa dayra ay alayna aw mukarraratan wala lu ñu baamtu du dëgg laa rajula fi daari wala mraata dégg nga su ko defee nag attey li raab ya nan la fansib biha mudaafan aw mudaaria dégg nga am na foo xam ne da nga koy nasab nasabu lafzan doo binnaat lisim ji ci fataa ñu naan barabu nasab la ne de mooy lan bu fekkee lisim ji laa di nasab mudaaf la wala lu sibhu mudaaf mudaari ahu ay mushaabihahu niki laa xulaama safarin indana xulaamu safar mudaaf ak mudaaf ilayhi la mooy lisimu laa kon nasab ko lafzan mooy fataak mimi fataak mandarga nasab la wala mudaari ahu lu niroog mudaaf shibhu mudaaf la waxoon na ko ci ajaroom mooy mattasala bihi shay'un min tamaami maanaahu loo xam ne dafa am lu ca jokk luy mottali maanaam li simba sawaun loola faa'il la ni ki laa laa xamidan fi'luhu madmumun xamidan mooy li simu laa fi'luhu mooy faa'ilam ismu faa'il day am faa'il comme fi'l lu dëgg faa'il ji mënul tàqali koog moom ah kon nag niroo naag mu daaf ci guddaay gi wala maf on la ca jokk du dëgg ni ki laaraaki ban farasan indana maf ol boobu moo ca jokku te du tàqali koog moom ndax soo noonu laaraaki ban indana rek kooku li muraadu wax kat du loolu du loolu maanaam mi nga soxla dikkut yow da nga ni kuy war fas amut fi nun jubluwoo kuy war mutlaqan xataa ku doon war gëleem sax amu fi loolu taxu lay wax kon nag farasan fokk mu dikk way laa li nga xam li nga wax duñu ko dégg kon nag comme fekk mafool bi jokku ci kooku niroo naag mu daaf ci guddaay wala sax jaar ak majruur ni ki laa xayran min zeydin indana min zeydin munul bañ a dikk de ndax jublu woo ni laa xayra indana mutlaqan déedéet loolu waxuloo ko da nga ni ku gën zeyd amul fi nun wala sax mu daaf ak mu daaf maanaam maatoo fa ca jokku sax dégg nga ni ki laa salaasatan wa salaasina indana yooyu mooy sibu mu daaf yooyu na nga nasab ak laa ji ngay jëfloo jëfu inna ci nakira na fan si biha mu daafan loo xam ne mu daaf la ni ki laa xulaama safarin indana wala mu daa mu daari ahoolu niroog mu daaf ci guddaay ni ki yooyu misaaliyat wa baada daaka waskur tuddal alxabari xabari la baada daaka ci gannaaw ba nga nasabee li si mam yooyu raafi ahoo ngay aji rafaa xabar ja nag ndax jëfi inna lay def wa rakkibil mufrada fatihan kala hawla wala quwata والثاني على مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا وركب نغا تركيب لسيمي لاجو جوي نكرة سودي مفرد لا نانكو تركيب بولك لاجي توغالي كو نياري باتي ملنا بن نيكي لا رجل في الدار laaji jël nga ko moo rajo la tappale ko ba mu mel ni benn baat la te ñaari baat la woon su ko defee lisim ju làmboo maanaam xarafa ngoog kon dañ ko bindaal ci fata nga ni laa rajo la mufradan warakibil mufrada fatihan nga di ko aji fata ca mujj ga barabu nasab la ne de waaye fokk da nga dañ ko bindaal ci fata dooni mukk dañ ko liraab binaal mooy safaanu liraab dañ ko binaal ci fata mu nekk barabu nasab laa rajo la ka xawlika laa xawla wala quwata laa xawla nga ni lisi laa daj jëf-jëf inna xawla mooy lisimam dañ ko binaal ci fata mu nekk nag barabu nasab wala quwata itam noonu la wasaani bu ñaareel ba gannaaw laa wala nga wax na ki noonu wasaani waj al defal asaani bu ñaareel ba bu la neexee marfo an muy lu ñu rafa ba bu la neexee jëfe laa yëpp nga ni laa xawla wala quwata waaye bu la neexee bu ñaareel bi nga ni laa xawla wala quwatun wala quwatun kon waawi xarafu ataf la fan la ñu ataf laa quwatun ba di ko rafaate xawla dañ koo binaal mu nekk barabu nasab ñu ni waaw xawla ci boppam barabu nasab la ne ngir bi itibaari annahu ismu laa waaye itam am na barabu rafa soo ko booleeg laan di annahuma fi mawdi il mubtada i kon laa xawla soo ko fomalee ñaari baat yi tarkiibam am nañu barabu rafa soo beddee xawla rek ni mooy lisi mu laa am na barabu nasab xam nga ne almaxaalu tatadaaxal dégg nga barab day dugg ci barab kooku léeg-léeg ci barab bi liraab yi nuy ki la loolu dégg nga nga def ko muy lu ñu rafa anam nga ku la woon lu tax nga rafa da nga ko naan dama koo ataf ci pala ma maxallu laa ak lisim ji dégg nga aw mun suban wala bu ñaareel bi nga nasab ko lafsan nga ni laa xawla wala quwwatan ku la ne waaw quwatan loo ko nasab ngeen ko dama ko ataf ci maxallu xawla xawla ndax xawla mooy li si mu laa kon am na barabu nasab nga daal di ataf aw murakkaban wala nga def ko muy lu ñu rakkab ni ki nii misaale ci kaw yax bi nga tarki ko na nga tarki bu njëkk ba laa xawla wala quwata kon laa xawla wala quwata dagan laa xawla wala quwatun dagan laa xawla wala quwatan dagan na ku ci ne wan nanu la saba wajhum waaye nag wa in rafata soo rafa awalan bu njëkk ba tëboon tëb ni laa xawlun laa tansiban bul nasabati bu ñaareel ba kon de laa xawlun wala quwatan kenn du ko wax ndax kon bu ñu la nee foo ko nasabe looy wax foo ko ataf quwatan da ko ataf foo ko ataf benn maxal wala lafz bu dawlu boo ko soo nee laa quwatan laa xawlun doo mën ni xawlun kenn du ko waxal benn barabu nasab moom dañ ko rafaa ci mubtada aywa kon nag quwwatan foo ko ataf kenn du ataf lu ñu nasab ci kaw lu ñu rafa kooku la bàyyi alaaj mbargaan Jóob rahmatullah alayhi daan wax ni ba ba bañul dara lu dul luntan rek lay bañ luntan rek nee na lu ne nangu na ko luntan rek lay bañ wax na dëgg nag anam yëpp nangu na ko dafa am xëy na bu la neexee ni laa xawla wala quwata bu la neexee ni laa xawla wala quwatan soo ne laa xawla wala quwatun waaye nag du nangu nga ni laa xawlun wala quwatan ndax quwatan nasab la amma laa xawlun wala quwata kooku sañ nga ko ndax léegi kon laa xawlun mubtada la xabar ja mooy fi daari jay dikk ci kanam wala quwata moom mustaqil bi nafsihi laa daal ma ngi jëf-jëfi inna ay sartam mat na kon nga liggéeyal ko boppam bañ a faale xawla moom laa xawlun fi daari wala quwata ndax mënoon nga tëb ni laa quwatay kese ni ki qaalu laa dayra wa in rafata awalan daal laa tansibani thaniya li annahu laa wajha li rafi wa mufradan naatan li mabniyin yali faftax aw insiban aw irfa taadili léegi nag laa joju li lisimu inna su fekkee mufrad la ah du mudaaf du si mufrad ci bii bunt nag bul ko jàppee mufrad ci buntu leeraab de mufrad ci buntu leeraab mooy lu dul tasniya du jàmm rekk jeex na mufrad nag ci ci ci ci buntu laa bii mooy lu dul mudaaf du shibhu mudaaf su doon tasniya mbaa jam moom moom lisim jeet mufrad la de ci bii bunt ah muaraf dana am ay itibaar ci ay bunt danaa leen ci wax tuuti bayt ay tàng wal mufrad aj'al fi nidaa wa baabila maa laysa bil mudaafi wal mumaasila wa fi l idaafati wa baabil alami maa laysa bil jumlati fafham wa alam kon nag mufrad fii mooy lu dul mudaaf du shibhu mudaaf bu doon dégg nga bu doon tasniya mbaa jamoon mufrad lañ ko jàppee du- nee nga oo, mu ne nag kon oo, oo, laa tabni oo, laa tabni naat mufradan naatan li mabniyin yali faftax dafa ne iftax fataal mufradan am mufrad naatan moo xam ne dafa nekk naat li mabniyin ñeel li si mu laaju ñu binaal ci fataa yali joo xam ne daf ca sës mufrad la mooy naatu laa dégg nga te dañ laaju ñu binaal la ci fataa te it mu- naat ja sës na ca dara doxul seen diggante kooku anam yii dagan na ca ñetti anam faftax fataal mufrad moomu nga xam ne naatu laaju ñu binaal ci fataa la te dafa sës ci moom léegi eh, te fekkit naat ji mufrad la de du mudaaf du mudaaf ilay ah kon nanga ko binaat ci fataa bu la neexee du dëgg nga ni mm, laa rajula zarifa indana dé dëgg bu la neexee binaat ci fataa mooy faftax ibni alal fat awin sibban wala nga nasab ko nga ni laa rajula zarifan indana aw irfa wala rafaa ko laa rajula zarifun indana xabar ji mooy ah, zarifun du xabar de naat la indana ji si bu jumla ji mooy xabar laa rajula indana laa rajula zarifa indana laa rajula zarifan indana laa rajula zarifun indana gannaaw mufrad la te eh, maanaam du mu daal du mu daal si moom naat ji dégg nga te daf ca sës dégg nga yooyu yett dagan na ca mu ne nag wa gayra ma yali wa gayra al mufradi laa tabni wansibhu aw raf aqsidi naat jooju nu doon wax su fekkoon ni sësul ca boroom naat ci wala dadul mufrad mudaaf la wala shibhu mudaaf kon kat ñaari anam nga cay man doo ca man yetti anam du nangu binaa mukk li anna al araba la turakkibu salaasata ashyaa mënoon nga ni laa rajula zarifa ba mu ca sësee tax du dëgg bu fekkoon nit xabar ja dafa dox ci diggante laa rajula fi daari zarifa zarifa dikk loolu doo ko wax de ndax zarifa fataam gi tarkiiba ko war a andil su fekkoon da ca sës nga ni laa rajula zarifa indana fa huwa murakkabun maa rajula ak zarifa murakkaban li leen tarkiiba xamsata asara la jëkkal du bëgg laaji ba laaji dikkee soppiwu ko loolu taxoon nga mel laa rajula zarifa amma bu fa xabar ji jaaree nag laa rajula fi daari zarifa yett yi dootoo ko mën tarkib li anal araba laa turakibu salaasata ashyaa arab du tarkib yett yëf yaa rek lay tarkib dégg nga laa tabni bu ko binaal ci fataa kon bu bu sësul wa xayra maa yali wala tabni ma xayra maa yali laa tabni bu ko binaal ci fataa nooy def wan sib hu nasab ko soo ne laa rajula fi daari naat ji door a dig nel zarifan aw yaqsid wala nga jublu rafaaga laa rajula fi daari zarifun waaye mënoo koo binaal ci fatta li ko waral benn dafa sësuloowul ak moom xabar ya jaar fa wala déedéet eh, naat ji dadul mufrad ndax da nga ni laa xulaama xulaama safarin dégg nga ah. wala laa xulaama tawila yadin ah. wala laa xulaama raakiban farasan indana kon yooyu kenn mënu ko laa tab ni nasab ko wala nga rafaa ko ba tey mu ni waxal ah wal atfu in lam tatakarrar raxkuma ah, lahu bima li naatizil faslin tama wal atfu lu ñu ataf nag dañu doon wax nga naatal ci li simila tey waxatunul noo ngi wax soo bëggee ataf beneen lisim ci lisimilaa mu ni wal at fu ataf ci kaw lisimulaa in lam tatakarrar laa su fekkee laam ji dellu siwut kon uxkum lahoo atteelal ñeel ataf googu bi maa ci atte ba nga xam ni intama askanoo woon na léegi nga dégg ma wax ko lil naati ñeel naat dil fas li muy boroomu faj te mooy dagan na nga nasab wala nga rafa waaye daganul nga bindaan ba tey soo noon tey ah, ah, ah, soo noon tey ah, laa rajula wamraata indana waaw kon mën nga koo binaal ci fata ndax baamu woo laaga du dëgg Eh, kon eh, déet déggal in lam tatakarrar la bi ma bi naali sil fatli maanaa kon bul wax bul ko bul wax laa rajula wamraata indana kon nooy def in sibhu aw iqsidi rafa ni laa rajula wamraatan indana wala laa rajula wamraatun indana bul ni laa rajula wa mraata indana ma ngi mel na naat bu fasale binaal gi fataa lañ ci tere naat gu facc du wax nañ ko léegi naat gu facc du danu ni woon kenn du ko laa tabli wan si bu awex si di rafa su fekkoon ataf la it noonu atafit gannaaw laa ji baam tuut bul ko binaal nang ko nasab nag laa rajula wa mraata du dëgg bi maa li naati di axkum wala atfu ataf in lam tatakarrar su dellu siwut su baamtuwut laaj yi ci boppam mooy faayilu tatakarrar doo ko firee in lam tatakarrar soo baamuwul kat su naroon loolu danaan in lam tukarrir soo baamuwul in lam tatakarrar moo tax ma firi de la ko rek in lam tatakarrar su dellu siwut laa laaja kon la nga cay ataf axkum lahoo atteel ko bi maa ci atte ba nga xam ne intama askawanoo woon li naati ñeel naat ci fas li juy boroom taqalikoog man ot te mooy nasab nga ci doon man mbaa rafaa waaye doo ko man bi naal loolu leer wa aatila ma hamsat istifhaami maa tastaxiqu doona l istifhaam wa aati joxal waati joxal laa ma hamsa istifhaam bi mbir mu muy ànd ak hamsa listifhaam na nga jox laa waxtu wa muy ànd ak hamsa listifhaam doon ala ndax du waay ala rajula moo ndax déet waay fi daari dina ci kër ga joxal laa bi mu ànd ak hamsa listifhaam maa tastaxiqu atte ba mu yelloo woon doona listifhaam ci ba mu àndul ak listifhaam ni ngay waxe ala rajula fi daari laa rajula fi daari ak ala rajula fi daari waaw naka waxu arab alar iwaa liman wallat shabibatuhu wa aadanat bi machibin baadahu haram wa chaa siiw na nag fii dal baabi ci buntu laa bi siiw na fi isqaatul xabar xadaf xabar siiw na fii lool qaalu laa dayr ana xabar ja xadaf nañ ko laa dayra ay alayna ah waaye nag ba ñu koy xadaf kat idal muraadu su fekkee ne nammeeluk aji wax ja maanaam ba mu jublu zaharat day feeñ ma suquuti ànd ak xadafu xadafu xabar ja amma su fekkee ne nag su fekkee ne muraad bi soo xadafee xabar ji dootu feeñ ñu dégg ca lu bokkul ak li nga jublu kon kenn du ko xadaf wa axawaatuha in sib nasabal zanna ak axawaatuha ci nawaasix yi la bokk dégg nga de ci nawaasix yi la bokk nawaasix jamu naasixatin naasix aji folli lay firi maanaam ay feel yoo xam ni wala ay xaraf yu niroo ki feel yoo xam ni su duggee ci jumlay li si mubtada xabar day folli atteb libtidaa uba atteb libtidaa mooy rafaa mubtada mi rafaa xabar bi am ci yoo xam ne bu ñu dikkee dañ koy folli kii da koy folli day jël mubtada def ko li si mam jël xabar def nasab ko def ko xabari boppam ni ki kaanaa ki bokkam kon kaanaan ci nawaasix yi la bokk bii moom day dikk dindi rafaaya ba mu set nasab mubtadama nasab xabar ja ñu tudde ko mafool bu njëkk ak bu ñaareel kooku kon naasix la ak xaraf wuy jëf ngir niru final ni ki innaa ki mbokkam ñoom bu ñu dikkee ñoom it dañuy fekk zeydun xaayimun ñu soppi atteb libtidaaw bi nasab zeydan ñu tudde ko li si mu inna rafa kee ñu tudde ko xabar kon loolu moo tax ñu di wax nawaasix way folli xukumu libtidaa ñetti façon la benn ba nag mooy zanna wa axawaatuha naaqis waaw naasix ak naaqis kaana mën nga ni naasix la li annahu yansaxu li annaha tansaxu xukma libtidaay man nga ni naaqis la li annahu laa yaktafi bi raf'il faa'il wa qad yakunu taamman kaana nag soo ko defee in takun yaa qawmi qad kaana al matar fa lasta taxtaaju laha ila xabar bu boobaa dootul naaqis foofu naaqis mooy safaanu taam te fiil yi danañ ca jaar am na yoo xam ni wazo tamamin ma bi raf in rekta fii wa ma siwaahu naaqisin wa naqsu fii fati alaysa saara daiman ku fi zanna wa axawaatuha insib nasabal bi fiilay alqalb bi fiili alqalbi ci fiilu xol jëfi xol maanaam fiil boo xam ne maanaam qaa'imun bil qalbi zanna jortu na ci sa loxo la ne ah njort ci loxo lay ne ci lamiñ fu muy ne ci xol kon zanna fiilul qalbi la dégg nga alimtu alima fu muy ne ilm du ne ci loxo gémiñ ci xol la loolu la ñu tuddee fiilul qalbi mooy nasab jus ay ibtidaa in ñaari xaaji mubtada te mooy mubtada ma xabar ja fiilul xol da lay nasab yëpp ñu tudde ko seen ñaari mafool kooku ñoo di zann ak i bokkam ani maa ngi ci jublu comme nag fiilul qalbi bul defee ni bépp fiil bu ne ci xol rek day naasix la de ah waxuma ko am na ci ay taam yoo xam ni ani kon ma jublu ca boog yi ma tax di wax nag ra'a ak xaala ak alimtu ak wajada ak zanna xasiba zaama adda xajaa dara jaala alladi ka ataqat hab taallam yooyu laa wax ñaata la lim ra'a xaala alimtu wajada zanna xasibtu zaamtu adda xajaa dara jaala hab taallam fukk ak ñett lim na ko yooyu waaye waxuma yëpp kat ndax dana la wax ci kanam ni li irfi li ilmi irfanin wa danni tuhma taadiyatun li waxidin multazama alima bu fekkee ne maanaa arafta la arafa kooku doo doon naasix benn mafool rek lay am fiil mutaadi danna jortuna xasiba xasib sànn sànna jortuna ra'a xaala jortuna alimtu moom xam na xam naa wajada fekk naa ni xam yëg naa ni rek zanna jortuna xasibtu jortuna zaamtu jortuna adda konte adattu konte na dégg nga falaa taadudil mawla sharikaka fi lgina walakinama almawla sharikaka fi ludmi fala taadud al mawla sharika ka seetal mawla mafool bu jëkk sharika mafoolu ñaareel lu doon cosaan ba ba ba naasix bi dikkul al mawla sharikun mubtada xabara fi waroon na naka noonu xajaa jortu na qad kuntu ahjo aba amrin axaa siqatin xalta alammat bina yowman mulimmaatu ahjo daraa ba tey noonu duriital wafiyal ahdi yaa urwa faxtabit fa inna ixtibaatan bil wafaa'i xamiidu wa jacala ak jacala alladi ba nga xam ne ka ataqada mooy bi maanaa fas nañu ni boobu jacala amaa waxuñu jacalay tasyiir de jacaltu tiina ibriqan ay sayartuhu jacalay tasyiir jacala bii nu wax mooy jacala bi nga xam ne pour mu doon feelul xal bi mooy bi maanaa jàppe naa ni jortu naa ni qaala taala wa jacalu almalaikata alladina hum inda arrahmani inaasa ñoom ñoom musriki arab jaaloo jàppe nañu jortu nañu almalaikata alladina hum inda rahmani wa fi qiraa ibadu rahman jàppe nañu leen inaasan jàpp nañu ay jigéen banaan almalaikatu banaatullah loolu la arab daan kooku jaala jooju feelu xal la bi maanaa jortu nañu gëm nañu ni dégg nga moo tax jaala lati ka ataqat waxuma jaala ja nga xam ne bi maanaa ka sayar wahab ak hab feelu qalb la boo xam ne siqatu feelu lamir la am du dëgg amul jaamit la de moo taalam amuñu feelu maat amuñ wahaba yahabu ja ngay wax naan hab may ko maa alal kooka kooka du jaamit ña ngi ko jëlee ci wahab hibatu wahaba yahabu nga ni hab lii waxul bokkut ak hab maanaa jortul ni hab jartul ni kooku mooy feelu naasix bi dégg nga muy nasab yaari mafool taallam bi maanaa ilam taallam shifaa an nafsi qahra aduwiha wa baaliq fala baaliq bi lutfin fi taxayuli wal makri taallam bi maanaa ilam waxuma taallam xam lul de kooku feelu du du du jaamit dafay am maat mu daare olama taallama ya taallamu taalluma wallati aywa jaala ba nga xam ni ka sayara dafa mel ni sayara aydan ba tey moom it du qalbi yu nag waaye ba tey insib biha mubtadaan wa xabaran moom it naasix lay doon waaye nag moom du qalbi yu te dan doon lim qalbi yi ma ngi yem ci habak taallam mu ne waaye jaala ba nga xam ne du qalbi yu xanaa dafa mel ni sayara du dëgg ni ki jaaltu tiina ibriqan jaaltu daqiqa xubsan ay sayartuhu naasix du naa naasix la waaye nag du qalbi kon waaye insib biha mubtadaan wa xabaran ba tey wa xussa bi taaliqi wal ilgaai ma min qabli hab walam rahab qad ulzima kada taallam wa xussa jagleel ma min qabli hab la jiitu hab ci fiyel yi nu doon lim bul ko fàtte xam nga limoon nanu fukk ak ñett hab ak taallam ñoo mujjoon fukki ya dawlu wa na nga leen jagle ilgaaw ak taaliq yooyu yaari atte hab ak taallam duñu duñu ko duñu leen ko def ilgaa moo di ibtaalul amali lafdan wa mahallan amil bi waroon a nasab li si ma xabar nga nga nga nga nga wëcc jëfam rafaa sa mubtada ak sa xabar du dëgg kon lafz beeg taqdir yëpp jëful taaliq nag jëful ci lafz waaye ci taqdir jëf na ñu di ko wax taaliq da koy jàng dégg nga ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيس سهامها لولو دنگ علمت دنگ معلق لا دو ملغات دو دغ معلق لا مانا لوكو غالانكور دو دغ لام الابتداء غوغو تي لتأتين منيتي لام غوغو لا يعمل ما قبلها فيما بعدها تي لفظ دو دغ lu dul woon laam gi waaw ndax alima feelu qalb la dafa war ilqa nag soo noon zaydun alim zaydun qaimun alimtu ah kooku wacc nga alimtu ci lafz ak mahal zaydun qaimun mubtada xabar la te soo ko mujjoon da nga alimtu zaydan qaiman lu dëgg mis ilqa u mooy ibtaalul amali lafzan wa mahallan taaliq mooy ilgaau l amali lafzan la mahallan yooyu nag fukki ya dawlu woon la ñu koy def waaye hab ak taalam ki waxut sa jagleel maa min qabli hab la jiitu hab na nga ko jagle yaari atte taaliq ak ilga ilga amul sabab taaliq day am sa ilga moom bi maanaa laa yajibu daal du doon waajib jawaas lay doon taaliq nag waxtu wu muy dikk waajib lay doon doo ko mën a def leneen wa wahab nag xad ulsima taqale nañu ko lamar feelu jaamit la amul benn mutasarrif bu dul feelu lamar dong lay doon hab kadaanaka noonu taallam ni ma la waxoon moom it bul amul lu dul siqatu lam jaamit la bokkut ak taallam jay firi jàngal xamal léegi nag wa li gayri almaadi min siwaahu maj'al kulla ma lahu suki wa li gayri almaadi ñeel na lu dul feelu maat muy mudaari muy lamar ba ci masdar lu soppandikoo ci feel yi feel seen feelu maat lanu misaal waaye lu dul maat laat ñeel na ko waj al defal li xayril maad ci feel yooyu min si waahumaa ci ku dul hab ak taalam yooyu ñoom du ñu am dara jaamit lañ waaye beneen bii mutasarrif ku ca am leneen lu dul maadit na nga defal loola kullama lépp loo xam ne sukki na la xoo miinoon nañu ko ñeel maal ma ciy jëf soo andee mudaari o zanna zaydun yazunnu amran qaiman nga andi lamaram nga ni ko zunna jortul zaydan qaiman nga andi masdaram nga ni wa dalika li zanni zaydan qaiman seetulu wali xayri lmaadi min siwaahu majal kulla ma lahu suki léegi ba tey wa jawasu lilqa ni woon naa la lilqa du doon waajib moom jaayis lay doon bu la neexee def bu la neexee ba waaye nag lilqa ba ñu naan dagan naa def dagana ba laa filip ti daay bu muy ci njëlbéen de ah ranantu dellu ni zeydun qaimun ni dama ilqa deet loolu du dagan lu tax lima fihi min tahyiyati al aamili l amali ma summa qat'ihi bila sabab prépareel nga aamil jëf ba mu yaakaar ko nga di ko ko xañ ci lu dul benn sabab loolu moo tax ilxaaw du dagg zeydun alimtu qaa'imun kon alimtu diggee gi moo tax dagan na nga def noonu gënu la rafet mbaa nga ni zeydun qaa'imun alimtu waaye alimtu zeydun qaa'imun loolu moom laa filibtu loolu daganut loolu mooy maanaa wa jawisi lil qaa fi fi laa filibtida dégg nga ñu ni waay ah nun kat waxi arab bu nag loolu nga wax